bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu <clears throat> bokki taalib yi fii teew jugee fu ci àdduna bi ngir jenn yitte rek tax leen a jóg muy nu ñu def ba gën a yembal liggéeyu Sëñ Tuubaa bi ñu bokk te di ko defal fii ci jumaa ji ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant di leen gërëm ci taxawaay jiitu woon eh, jataay bi sëñ Afia moom moo leen di woo yéen ñi nga xamante ne yéen nekk ca réew yu sori yooya te taxul ngeen fàtte liggéey bi sëñ Tuubaa bii nga xam ne moom la jiite. xam naa moom sax waxtu wi day waaj jot te day dem ca jumaa ja dañ koy jox mu ubbi dalal leen boo ko defee kàddoom sëñ Abdou Lahad Mokhtar mii di rakkam moo koy wax moo koy yi nga xamante ne moom lay leen di jottali waaye balaa moo dem ca jumaa ja mu nuyoonteeg yéen saafonte ak geen ndax day mel ne waxtu wi jege na te léegi tey ñu nodd incha allah. bu ko defee dañ koy jox bu bu mu nuyoo génn balaa moo dem ca jumaa ja boo ko defee ñun ñu eggalee buñ jullee ba noppi itam mottali li des ci jotaay bi incha allah. katu ba kitaay bi ñu nuyu ñëpp di wax ñëpp ahlan wa sahlan marhaban di bëggit lool ci jataay bi di ko namm lool itam ndax mbooloo mu toll nii te pas-pas boole leen te ñu ci bari dañuy déggante rek waaye gisante bi moom xëy na euh, fii lay amati ba féeti kon lu mu gën a jege rek mu gën cee sant yàlla bu baax a baax a baax ndax mbooloo mii mbooloom papas moo xam papas rek moo ñu fi dajale kon ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di saari ñëpp di balu ak ñëpp di eh, wax ne waxtu dafa jot dafa maa jot lool moo tax kon damay doon mm, fay nuyoo rek mbooloo mi waaye bokk yaa ngi fi incha lu ci ma lu ci mat a wax ci mat a wax dañ ko wax jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa waxtu damaa xaw jot lool <laughs> waaw bisimilahi rahmaani rahim kon ni ko ni ko Sëñ waxee mu ngi leen di dalal jàmm ci kër gi tey neexlu jotaay boo baax a baax di ko rafetlu itam ngir ne bu goon bu doon gën a jege mu gënal ko ndax day mel ne at ba at dañuy gisante waaye lu jëm yi sore sore pas-pas yi benn la yéene ji yitam benn la mooy liggéey ànd ànd liggéey suñ tubaab jumaa ji kon xam naa dañuy dinañ jox suñ Xasan bu mi nga xamante ne moom mooy jëwriñ nii eh, ñi nga xam ne ñoo nekk biti réew eh, te seen liggéey di jëm si jumaa ji mooy mooy seen moom mooy seen buntu moom danañ ko jox mu wax mu dalal leen waaye yëkkati ay kàddu su ko defee réew yi nga xamante ne ñoo fi jot a teew itam réew mu nekk dañu sàkku ci moom ñi nga xam ne ñoo leen fa teew ñoo fa teewal réew mooma ñu tànn ku wax ci seen tur dañ jox kenn ku nekk kàddu eh, ginnaaw bi itam sëñ Abdou Lahad mi wax ci mi nga xamante ne moom mooy coordonné ak sëñ Assane mooy sëñ Blahat Bousso Thierno nga xam ne yéen ñu bëri dangeen ko xam ndax day faral di ñëw ci eh, eh, réew yu bari ngir di jëmbal liggéey bi ak di ko eh, fa jëmbat di ko fa gën a dëgëral moom itam dana ñëw ci lim délégation yi kenn ku nekk waaye ñu xam ne réew yi fi teew yii la Argentine teew nañ fi Italie itam France Togo Amérique Espagne Angleterre ak euh, Écosse euh, bu dee ci wàllu Afrique itam Côte d'Ivoire teew na fi ak waa Togo ak waa Mali i am na ci réew yoo xam ne itam ñu ngi jokk ci liggéey bi di ci liggéey liggéey bu am solo itam donte teewuñ fi seen bu ñëwee ñoo ñooñu nga xam ne teewuñ fi dana gën a leeral seen mbir incha allah ngir njëkkanteeg waxtu wi kon nañ jox sëñ Assane Diop euh, jëwrin mu mu mu mu mu ubbi mu ko defee dalal leen. waaye sànni ay kàddu balaa ñuy jox sëñ sëñ Abdou Lahad Thierno mi mi nga xamante ne moom lay seqal liggéey bi jeexale itam ci sëñ Abdou Lahad Mokhtar mi nga xam ne mooy wax ci turu sëñ Afia ci turu wa daayira bi yëpp bisimilah sëñ Assane billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim inna ibadi laysa lakk alayhim sultaan walaaw yaxsimuka mina naas yaa allah barke borom Tuubaa eh, ginnaaw bi ñu jiitalee ci saar bi Cheikh Modou Mountakha eh, teg ci sunu jëwriñ sëriñ Yaafi Busal imaam euh, di yëkkati ay kàddu rekk yu bàyyi ko ci ni ko sëriñ am di waxee euh, muy kàddu yu siyaar ak kàddu yu ngërëm kàddu yu jaajëfal kàddu yu soññee yu bàyyi ko ci sëriñ Yaafi Busal imaam euh, ci biir siyaar bi tam noo ngi siyaaree sunu sëriñ ndax dafay teew muy sëriñ Xaadim Diop moom sëriñ Saliou Diop moom sëriñ Omar ak Cheikh Omar mi mandal ginnaaw loolu tam Euh, sëriñ Afia dafa wax ne bis bi moo ko sàkk woon moo waxoon bu màggalee ba bis bi delluseeti mboolem liggéeykat yi sëñ Tuubaa yi nga xam ñooy ànd ak daayira bi ci bitim réew muy waa diaspora bu ñooy diaspora nag mooy réew yi fasantikoo diggante Amérique ak Europe ak Asie Afrique foo ay ne ci bitim réew rek yaa ngi ci biir yooyu buñ buñ waxee loolu nag dafay mel ne sama kàddu gi mooy nuyoo bi mooy yónnee bi jëm ci ñëpp nga xam ne bàyyiwuñ benn réew. sëñ Yaafe noonu ma ko sàkkoo woon wax ne bu bis bu delsee suñ ko mënee ñu fekk si ko fii mu sant leen jaajëfalanteeg yéen ci liggéey bi nga xam ne yéen a ngi ko ànd ànd ak daayira bi di ko liggéeyal seexul xaddim ci jumaa ji ndax noonu la ko defee mbooleem fu daayira jóge woon ci biir réew mi bi ñuy màggal ku xool image yi gis nga daayira yi ci biir Sénégal yëpp dañoo daje ci jumaa ji waa jumaa ji rafetlu seenub liggéey sant leen gërëm leen noonee tam lañ ko defeek waa diaspora mboolem fu ne ci diaspora rek tey jii ku ñëwut sax yónnee nga sa woote wax la la tënk kàddu gi daayira bi dajale ci kàddu suñu aafiya mooy wax nañ ne daal képp ku nekkoon bitim réew te biñ wootee nga wuy si mbaa nga ci yéene sant nañ la gërëm nañ la ci biir cant googu ak ngërëm li ah, gis nañ ne yéen yéen mu bokk ngeen ci ñin teg ci kanam ndax lépp loo xam ne yitte la ci daayira bi rek seen ñoom ñi ne fii ci jumaa ji rawatina yi sëñ yi mi ci bopp bi seenum xel ci ci yéen lay njëkk a tege te buy tegee ci lu ngeen ci dégg bu leen ci wootee rek wuy si ngeen ci muy ci matériel muy ci ay jëf ci koppar yeeg lépp lu ñu laaj rek seen jëf agsi na ci kon nag jëre ngeen jëfati réew yëpp tudd nañ leen li ma ciy wax rek comme waxti xataayu waxtu wi mooy ab soññee nag boo xam ne ab wootewaat ab fàttaliwaat ndax ren dégg ngeen message yu bari yoo xam ne daayira bi yëkkati nañ ko ci ay yitte yoo xam ne soxla nañ ko ci biir liggéey bi euh, loolu sëñ Abdou Lahad Muxtaar dana ceeg si euh, ñi amoon yéene tam wax ne buñ sañoon yi ñuy jàmbat wala ñu di ko soxla te ñoom ñuy liggéey jumaa ji loolu ab yóbbante la sëñ Abdou Lahad yónnee naa ko ay ay vocal yoo xam ne ay nit wax nañ ko ne maanaam yu bari yoo xam ne tey jii suñ ko suñ ko amoon ba taxawal ko fii ci jumaa ji fii ci dëkk bi mu nekk loo xam ne dana man di Euh, euh, taxaw taxawaay boo xam ne lu daayira bi soxlaati balay tàllay loxo rek am lu fa nekk loolu tam Sëñ ab yóbbante la kon waa bitim réew tàllalaat nañ leen loxo joxaat nañ leen seen bopp di leen yóbbante rek ab nuyoo kub siyaar ak sàkku ñaan nag ba yéene ji nga xam ne am nañ ko ci liggéey bi rek ñu mën cee dajeek ngatandum sëñ bi kon li ci des xamaa dañ koy bàyyeek euh, jëwriñ yi ak ñi fi teew ñu mën ko yeggale daal waaw ñun nag suñ wetu bopp sant na ñëpp jaajëfal nañ ñëpp jërë ngeen jëfati. jërëjëf sëñ sëñ Assane mu xam naa dañ jox euh, dañ jox dañ jox ñi nga xamante ne ñooy représentant euh, réew yi nga xamante ne ñoo fi ñoo fi teew euh, jiite ko ci yi nga xamante ne dañoo jël la Afrique dem ca Argentine ki nga xamante ne mooy wax ci seen tour mooy sëñ Dame Cissé mi ngi àndante ak sëñ Baara Ndiaye. xam naa sëñ Blaat dana ñëw ci lim ñi nga xam ne ñoo fi teew fi réew yi bu ko defee daam kon mën naa jege bu ko defee jël kàddu gi ci turu ci sëñ eh, ci turu waa Argentine allah. sëñ Ibrahima Cissé sëñ Ibrahima Sey moom itam mën naa waaj bu sëñ daam noppee rek mu jël kàddu gi incha allah bisimilah ñëwal. min aseytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wal tudxilil muslaha fi yaddi wa fi daari wa sabbitu bil haadil wa fii asalaamaaleykum wa wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi ak ziyaar bi sëriñ Afiya Busa al imam di ci teg sëñ Abdoulaat bu sama masta sëñ Abdoulaat bu sama maam Thierno ak sëñ Abdoulaat bu sa Moxtaar di ci teg sëñ Assane Diop mu xaddamaatul xidma mi nga xam ne mooy coordonné mboolem diaspora bi di leen nuyu di nuyu mboolem jëwriñ yi fi teew yëpp ak ñi fi teewal seen i mbooloo ci goxi àdduna bi bi fasantikoo yi fii ci kër sëñ bu Bousso imam di sant yàlla bu baax ci am mbégte di daje at mu jot comme ni ñu ko baaxoo daje rek di xamante jëwriñ ba dañuy déggante waaye lii day lu am solo loo xam ne euh, day dundal daayre bi di dundal diaspora bi di dundal goxi àdduna bi yëpp ci ndaje mu am solo mii xanaa ñu ngi leen di nuyu rek ci turu sëñ Mortala Sall jëwriñ mi nga xam ne moo jiite fédération Touba Argentine Miftaahu Nasri Touba Argentine ak mboolem dawaayir yi nekk Argentine yëpp ci seen tur lan fi teewe te ànd seeg sëñ Baara mi nga xam ne mooy coordonnateur euh, Touba ci kanam Touba Argentine kon ñooñu leen fi àndal teewal fi waa Argentine gépp di leen soññ di soññ suñu bopp di soññ mboolem continent ami Latin Amérique diggante Brésil ak Chile ak Uruguay nga xam ne ñoom ñoo nekk ci Latin ba te ay bi Serigne Touba nekk fa ñu leen di soññ ci liggéeyu sëñ liggéey bi nga xam ne liggéey bu yàlla gërëm la Serigne Touba gërëm ko ndax benn liggéey féetewut taxa féete sëñ Touba ci jumaam ju tedd ji nga xam ne daanaka amul lu moom moom Seexul Xadim muy jumaa ju tedd ju barkeel tan ñoom it ñu taxawee lu lu am solo ci dëkk bi muy lépp loo xam ne rek lu jëm la ci sa mu al mubarak muy weeru koor wi nga xamante ne kenn ku ci nekk ci àdduna bi gis nga mboolem jullit yi fi doge ci weeru koor ak entretien bu jëm ci màggalu Tuubaa muy màggalu Seexul Xadim gi ak lépp loo xam ne lu jëm la ci liggéeyu Bakhiya ak li ko wër lépp daayira bi ñoo ko taxawee kon euh, daayira bu am solo la bu ëmb lu am solo ci biir Touba di bànqaas bu mag ci Touba kon ñu ngi ci soññ suñu bopp di ci soññi mboolem daayira yu nekk Argentine ñu gën taxaw gën ci liggéey bi nga xam ne da ku ko def sëñ Tuubaa nga ko defal ndax kenn defalu ci kenn dara lu ci waaye def rek sëriñ Tuubaa nga ko defal kon daal woote bi mi ngi jëm ci soññi suñu bopp ñun ñu nekk Argentine ak diggante Argentine ak Brésil ak Uruguay ak Paraguay nga xam ne loolu ñëw ñëpp ci Latin Amérique bi lañ bokk ku ci duggutoon ku ci bokk ku fa yegg seegutoon liggéey bi ñu fexe ba nga yëglu bu ko defee liggéey bi mën a yegg si foofu ñu ànd ko muy Latin Amérique bi di ko joyal si ci daayira Muxaddamaatul Xidma loolu daal mooy soññee bi kon xam naa dañuy wàcce foofu te e, ndax bata jotaay bi xaw naa kii tuuti te waxtu timis waa ngi jot kon ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di wax ne wa kullu am wa antum bil xayri asalaamaaleykum wa rahmatullahi ah. waa Uruguay ak sa Uruguay ñëwoon na macha allah jërëjëf macha allah tubaarkalla jërëjëf jërëjëf Ibrahima Seye mii ci sama càmmoñ moo leen fi teewal e, moom lañ jox kàddu gi bu ko defee mu wax ci turu waa Italie yëpp Eh, xam naa ki teewal waa France muy jëwriñ Sëñ Modou Fall Kébé eh, mën naa jege si moom moom mi nga nga xam ne mooy wax ci tur walla bu fekkee Sëñ Seex eh, Diouf wala Sëñ Seex Diop ku ci ku ci wax ci tur waa France rek mën naa waaj ja jege. bismillaahi asalaamaaleykum wa rahmatulah waa daayira Muxaddamatul Xidma ndongali Ibrahima Seye mooy jot nuyoom ak siyaaram di ak jiital ak cant ak siyaar baax ci ku tedd ki sëriñ Afe di ko ñaanal yàlla suñu borom doole ko kàttan di siyaare waa daayira bi yëpp di jiital ci nuyoo bi nag suñu jëwriñ sëñ Fallou Mbacke ak sëñ Ibrahima Ndiaye xasida nga xam ne mooy jëwriñu Touba Italie ñu ngi siyaare mboolem ñi nga xam ne ti ñoo nekk Italie ñëpp man ma teewal leen fi di Ibrahima Sey di leen jottali seen nuyoo ak seen siyaare ak cant d'abord wax ji kàddu gi moom genn kàddu la rek muy kàddu soññee d'abord di leen sant itam di li fi passé lépp ci ma jëfu ci màggal gi ak jëf yi passé te ci koor gi ak ci exprès yéen fi yónnee woon yooyu yëpp yooyu wax dëgg yàlla macha allah moom jumaa ji moom dara du doy waaye bu doon luy doy itam loolu moom am na lu ah, taxawaay boo xamante ni taxawee nañ ko ñu yàlla suñu borom subhaanahu wa taala gën ñu kattanal gën ñu ba lépp li ñuy yéene itam ci liggéey bi suñu borom mottali ko waaw kàddu yi moom mooy kàddu soññe rek di wax waa Italie moom maa leen fi teewal tey kàddu yi benn kàddu muy kàddu soññe te wax dëgg yàlla ku gis lii itam sa xel dina sa xel war na dal te xam ne li ñuy laaj ak li ñuy li ñuy soññee que ah, fi mu jëm fenn la ñan yàlla suñu borom nangul ñu ko ci bak Seexna Xadim ba lépp lu ñuy yéene rek waaw ñun moom wax dëgg yàlla te di ñaan yàlla itam suñu borom kàttanal ñu ba lépp li nga xamante ni jëf la euh, ñu ñu ñu ànd ci jëf jooju te wax yàlla ñu ngi seen ginnaaw ci daayira bi lépp li nga xamante ni daayira bi soxla na ko bu soobee yàlla buñ ci jotee luñ ci man incha allah dinañ ko def liñ ci man dinañ ko def di sant bu baax a baax di nu nuyoo ñëpp itam sëriñ Daaru ak sëriñ Ibrahima Ndiaye ñu ngi leen ñi nuyoo ñu ngi jotali seen nuyoo ak seen cant bu baax a baax a baax di soñ itam waa fi ma dëkk mooy Touba Pisa ñooñu itam dama leen jagleel ak cant wax dëgg yàlla macha wax dëgg yàlla am nañ ci liggéey bi ak Pastef bu baax a baax a baax a baax di leen ñaanal yàlla lépp lu ñu fi jëf rek suñu borom nangu ko ci bàkk Seexna Xadim waaw ak waa ñaa yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm waa Touba Livorno euh, Touba Santa Corosso ñëpp ñu ngi leen di ziyaare bu baax a baax a baax di leen xamal ne que liggéey bi agsi na masala ñaan yàlla suñu borom nangul ñu ko ci bak seex na xadim maa ngi jégalu kàddu gi bu baax a baax nag asalaamaaleykum wa rahmatullah aleykum salaam wa rahmatullahi wa jërëjëf sëñ Ibrahima Sey moom moo doon wax ci turu waa Italie gépp moom moo leen fi teewal ni ngeen ko déggee yeneen jëwri ñi nga xamante ne tudd na leen te ñekk ci yeneen dëkk ci biir Italie ñoom ñëpp moo wax ci seen tur ñu koy sant baax di ko gërëm di ko yónni itam ak cant mu santal bokk taalibe yi nekk foofa ak liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci ci ci daayira bi bu dee kon xam naa waa France ñoo ci war a topp eh, ñi leen fi teewal mooy sëñ Modou Fall Kebe nga xam ne moo jiite eh, léegi eh, waa fédération des mourides de France yi nga xamante ne ñoo nekk foofu ci Touba Aulnay ci kër sëñ Touba googu nga fa nekk ci sëñ Mourtala taxawaloon ko Euh, al imam sëñ bu soobee mi ngi fi moom itam buñ ko tuddee rek daanaka mooy jëmmal mooy jëmmal mooy jëmmal foofa bu ko defee mi ngi àndante ak sëñ Cheikh Diouf nekk euh, La Rochelle sëñ Cheikh Diop ñoom ñëpp ñu bawoo France ñëw teewal fa France gépp xam naa damay jox sëñ Cheikh Diouf mu ubbil sëñ Modou Fall Kébé bu ko defee mu nekk genn kàddu incha allah. rabbil alamin jërëjëf Seyxana Ahmad al Xadim alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf seexanaa alham seexanaa al ahmad al xadim alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf seexanaa al ahmad al xadim sëriñ Touba Cheikh Sall Cheikh Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg lool te wér ba nekk ba ba def kéemaan ci barke borom Touba xam naa samay kàddu moom Euh, cant lay doon ak feeñal sama mbégte ci yaakaar ju dolliku ci yaakaar ne France euh, buñ fi jógee euh, dana doxaati jéego am naa ci yaakaar bu baax li waral mooy jëwriñ yi ma fi fekk mu mel ne sëñ Modou Fall Kébé mi ngi yoroon jàpple daara yi muy mbooloo moo xam ne dañuy taxawu mbooleem daara yi di leen jàppale ci dund yu bari daara yu bari di leen jàppale ci ay dëkkuwaay ak yu ne boole ci euh, mu mel ne kër sëñ gi ci wël na ci ci Fra Paris moom lañ def jëwriñ ja léegi mu mel ne euh, mu mu nekk koo xam ne. yaakaar mën naa ku ci ne buñ fi jógee euh, mbooloo mi dana doxaat jëm ca kanam ci waa France ñu ciy soññi suñu bopp di sonn ñëpp di am yaakaar bu baax a baax ci loolu mu mel ni mu ànd ak sëñ Seex Jóom mi nga xam ne moom itam moo nekk trésorier trésorier bu euh, daayira boobu ca France depuis moom bañ sosee kër sëñ Tuubaa ga ba léegi moo fa nekk sëñ trésorier ku fa ñëw kuñ kuñ fal nga nekk foofu moom nga fay nekk kuñ fa jëlee moom moom toujours ma nga fa des kon loolu mooy wane ak jublu la ak jàmbaar ci liggéey bi ba moo tax moom it moo booba léegi moo fa nekk te moo fa nekk ba léegi nar a moom liggéey bi kon yaakaar mën naa dolli ku ci ñoom ñooñu ñooñu buñ jàppee ci mbooloo mii dana dana am yaakaar ci ne euh, liñ jëm ci kanam dana wuuteeg liñ weesu noo ngi ñaan suñu borom mu jàppale leen noo ngi ñaan ngeen ñaanal leen ñu sun suñu borom jàppale leen kàttanal leen ba seen i yéene yëpp mat ci liggéey boowee ci kër Sëñ Tuubaa mat ci liggéey bii ñu fas yéene tàmbali sumb ko asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa jullit yi ñu ngi leen di ziyaare bu wér di ci jiital suñu kilifa gi nga xamante ni bi moom lañu fi fekk muy sëriñ Afia Bousso ak njabootam gi yépp di leen balu àq itam bu baax di leen baal donte yoralu leen ñu àq itam ñu waxe ko noonu rek waaye di ñaan suñu borom ci kàttanam ak ne mu boole ñu jéggal mu mel ni rek comme ni ko suñu mbokkum jullit mbokkum taalibe di suñu wëllëre mu yàgg loo xam ne mën nañoo wax ni mat na fi ñu toll juróom fukki at mbaa mu jegeñ ko yoo xam ne ñu ngi ànd te ci ak taalibe rek ak ci dox lu baax ci lañ ko mas a xam muy sëriñ Cheikh juuf mii euh, biñ ñëwee fekk ko fi suñum xel ñun tam dafa gën a dalaat euh, ndax sëñ Assane euh, Diop mi itam ak ñi nga xam ne ñi ngi ànd ci liggéey bi yëpp itam ñu ngi leen di sant ndax moo ñu dugal ci liggéey bi xam naa miinante gi xaw des tuuti waaye ci kàttanu suñu borom mën naa tax xam naa li ci kanam mën nañoo dimbali ba miinante gi gën a yokk duggante bi itam gën a maanaam duggante daal xam naa dañuy jéem a tënk rek ci nu mu gën a gàtte ndax ci benn bis xaj na mënee su cee wax lépp yi li nga xamante ni mi mooy nekk ci ci xol bi ci yéene yi ak li nga xamante ni mi ne mooy rot maanaam ci xel mi waaye rek ginnaaw mbégte mi ñu wax rek li nga xamante ni bi ne moom lañu yaakaar muy rek euh, ñun ñëpp rek ñu gën a ñun ñëpp rek ñu gën a laxasuwaat rek te xam ni maanaam lu baax mosula yomb ginnaaw nag fii ñu toll nii dañoo am loo xam ne dafa nekk suñu kanam muy yu bari sax waaye nag lii nga xamante ni bii na mooy li tax ñu woo ñu fi tey def cee bari lu bari loo xamante ni bii na man mii umpule woon naa ko mbokki jullit yu bari itam umpule nañ ko euh, muy maanaam mbokki taalibe yi itam loolu nag mu laaj maanaam defe naa liggéey boo xamante ni bi nag bu mag la ndax lu bari xaj na nit ñi ñi ngi am yéene def ko waaye ñàkk tasaaroo gi de day tax maanaam ñu bari buñ ko xamut Euh, duñ ci mën a dugal seen loxo wala seen xel wala seen doole kon day laaj xam naa incha allah bu ñu yàlla dimbalee ba ñu dëppaat euh, mu laaj defe naa ay xaj na jataay yu bari moo xam ci téléphone lay doon moo xam ci lu manti doon rek ngir li nga xamante ni benn moo nekk ci xel yi ak yéene jéeg lépp rek ñu gën ko mën a yaatal maanaam gën cee waxtaanaat bu baax li nga moom la ñu bëgg a wax rek jéem a tënk rek mooy kenn ku nekk xam na ni Euh, bépp maanaam naal maanaam muy mooy projet boo xamante ni bi na am na la koy mën a doxal mooy maanaam organisation organisation nag mi ngi àndi mi ngi amee rek ci ay xel yoo xamante bi ne ñaare dañuy bokk lu ñuy xalaat walla la ñuy xalaat itam bu wuutee suñu waxtaanee ñu xool la ca gën a jàppandiku ñu mën koo doxal xel yooyu nag bala muy maanaam am njariñ itam day fekk itam maanaam xol yi ci boppam itam ànd ndax xel yi moom du mu xalaat xalaat te xol yi maanaam dese ànd euh, loolu maanaam pour mu dox dafay xaw a nekk loo xamante ne lu jafeñ la te dafay am yu sew yoo xam ne ñaare moo ñuy téye waaw yoo xamante ni bi nag fi toll liggéey yu bari tey jii ci àddina bi euh, mu ngi dox waaye na mu waroon a doxee maanaam doxewu ne euh, te li ñu gis ni maanaam ci suñu xalaate xam naa lépp mënees su ko wax ci benn jataay waaye e, yu ci bari dañuy jiital maanaam tey jii nit ci ci mbir e, wóolu ko e, jàpp ni kii kat moom war naa mën a doxal liggéey bi waaye nag foofa lañuy yem te dañu maanaam amul dara loo xam ne tey jii mën naa dox te maanaam jàppalewuñu ci nit ki waaw nit ki nag lu mu am xel mu rafet rafet ak lu mu am Pastef Pastef mbooloo faw mbooloo mi maanaam jàppale ko ci loolu kenn ku nekk jàpp ni maanaam kat lii sama sama mbirum bopp la bu ko defee loolu dina tax maanaam ka ñu jiital ci kanam euh, maanaam euh, liggéeyam gën a oyof waaye suñ ko bàyyeek moom rek moom day mujj sooxe te itam li nga xamante ni bi ne moom lay fàttali itam ñaare mbooloo yu bari tàmbali bi bu ñu tàmbalee engagement yi day bari dañuy wane Pastef gi wane taalibi gi wane lépp waaye balaa yàgg ñu néew ñoo cay des waaw ñu ci bari dañuy maanaam rocceeku bàyyi ñi ci des ci biir du ñu ne nag bàyyi nañu waaye day am noo xam ne nit ki bu ñu doxalee daanaka moog bàyyi ñoo yem. waaw kon lépp bépp engagement boo xam ne ñu ngi koy jël ñu xam ni kat loolu faaw maanaam mu nekk benn maanaam euh, euh, travail collectif daal maanaam mbooloo moo xam ne daal dañuy ànd def ko. waaye su fekkente ni bi na ko koy def dañ ko daf caa wéet euh, bu boobaa itam maanaam euh, du du du du dem fu sori kon xam naa loolu moom ñu bàyyi ci xel xam naa ne bu soobee yàlla ginnaaw euh, bu li weesoo comme ni ma ko waxee rek ñun dinañu jéem a yaatal waaye ñu fexe itam ci sama xalaat ni kenn ku ci nekk nga xam ne dëkk bi nga nekk fexe ba dajale ba dajale leen maanaam daayira yi ñu nekk benn waaw su fekkente bi ne tey jii lu mel ni France fexe na ba dajalee daayira yi yëpp nga xam ne ñoo nekk France kenn ku ci nekk du tere nag yaa ngay wéyal la nga doon doxe waaye nag ñu am lu leen boole loo xam ne day tax maanaam naal yu mag yi maanaam projet yu mag yi bu jotee ñu mën a xam ni kat lii am na bu boobaa ñu bokk def ko te du tere kenn ku nekk la nga nekkoon maanaam nga nekk ca moo xam sab sëriñ la wala lu mën ci demee wala daayira boo xamante ni daayira Serigne Touba la wala lu mënti demee waaye yu deme nii lu demee ni jumaa ji dafa nekk loo xamante bi ne lu jar a jógaat ci man ni ma ko xam ni ma li ma ci xam akus néew nii nekk na loo xamante ni bi na lu jar a jógaat bu baax a baax la bu ko defee su fekkente ni bi na maanaam France def na noonu Italie yeneen dëkk yi ci des ñi nga xam ne ñoo fi daje ak ñi nga xam ne ñëwu ñëpp def nañu noonu loolu bu ñu demee ba nga xam ne wóor nañu ne loolu nag taxaw na nag ñu xool nag léegi Europe bi nan la ñuy def ba maanaam am lu ñu boole loo xamante ni bi na bu dara xewee ñun ñëpp dinañ mën a tënku ca loola lijjanti ko ci noo xamante ni bi na waaw waaw ndax Europe bi maanaam bu ñu demee ba Europe wala ñi nga xamante ni ñoo nekk côté Amérique wala ñu nekk côté Afrique kenn ku ci nekk ñu fexe maanaam ñoom itam ba booloo bu dara xewee rek maanaam tasaare ko dafay yomb lépp maanaam organisation lay doon xam naa ci kanam ci kàttanu suñu